quotidien ne fi mu toll nii kay waa Pastef taxawal nañu nag ñeenti mousquetaire ngir lu jëm nag ci élection présidentielle yi woote yooyu nga xam ne rek moom la ñuy amal ci réew mi candidat yi taxaw samp seenub nënd ngir bëgg caa bokk loolee nag moo jaaxal yéenekaay bii di enquête waral nag mu ne atum 2024 lu toll nag ci téeméeri dossier daanaka déposé nañu ko waral ba yëglekaay bi ne atum 2024 nag at la moo xam ne kenn dootu ko fàtte ci élection lu war a toll juróom-ñeent fukk ak juróomi doomi aadama nag jot nañoo déposé seen dossier ca conseil constitutionnel yéenekaay bi bi di xam ne ne ak lim bu takku bi doublon moom mënee su la ñàkk ci yile candidature fekk jamono joojee nag le solo yëglekaay daal di taxaw nag ci société bii di Dakar dem dikk ak it bi suyees yi nga xam ne rek fas yéene na koo dugal ci wàllu dem beeg dikk bi lim bi nag bu ñu ko xaymaa toll na ci trois cent soixante-dix démb la ko njiital Dakar dem dikk doon présenter kii du njiiti réew mi lu jëm sax nag ci wàllum infrastructure routière yi ci ndajem conseil des ministre bi ñu doon amal démb moom njiiti réew mi nag ma ngay sàkku ngir ñu daal di ciy amal ab càmbar gu am solo am ndaje meneen mu palais de la république nag merloo na bay futtu kii di Barthélemy Diaz bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi nag mu ne ab wàccaay la jëm ci Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ay xupp nag ma ngay bàyyeekoo ca waa mairie bu Ndakaaru nag ginnaaw conseil amal démb te boolewuñ leen ca nag loolaa waral nag ba Barthélemy Diaz ndey ji réewum Ndakaaru ma ngay ñaawlu nag li nga xam ne mooy doxalin gi ak it nag li ñu amal yi leen ndaje te boolewuñ ca waa mairie ville bu Ndakaaru Le Quotidien yëglekaay dellu siwaat nag ci njàng meek njàngale mi ak ak yi nga xam ne rek fas yéene nañu koo dooraat te faculté des lettres lu ñu mel nag ñu ngi ko jàpp ñetti fan ci weeru janvier naam sax nag amuñ ci ndogal gu bàyyeekoo ci conseil académique bi waaye nag kudd moom ba nagani si ma ngay xam ne ni nag dafay wéy nag di tëjal ay buntam ñii di étudiant yi di Quotidien nag daal di dellu siwaat ci at mi nga xam ne rek mooy atum 2023 ab rétrospective bu jëm nag ci tukki mu jaarul yoon accident yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci biir géej gi bakkan yu bëri ci faatu mu ne atum 2023 moom at mu doy waar la ci wàllum tukki mi l'observateur def ab reportage bu am solo nag ca la dëkk la goo xam ne rek foofee itam Ndella Madior Diouf amal na fa ab pouponnière saytu gi nag fësal ne lu toll ci ñaar fukki soxna ëmb nañu fa nag te it nag di ñàkk sàmmonteeg lii di visite prénatale yi accouchement à domicile yemoog nag kii di président Macky Sall moom jël ay matukaayam ci ab décret bu jëm nag ci réglementé lii di pouponnière yi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di Les Échos mu di nag ab réaction boo xam ne rek mi ngi ko amal moom njiitu réew mi ginnaaw coow li topp kii di Ndella Madior Diouf Macky Sall ma ngay sàkku ñu xoolaat nag ni ñuy ubbee yooyee pépinière xoolaat tamit nag doxalin gi jëm ci bërëb yooyu nga xam ne nag foofee la ñuy denc ñii di tout tànk yi Ibrahima Ndiaye moom mooy DG bu Ageroute nag jamono ko à la traité Ndeye Sali Diop di koy nommé muy PCA lu jëm ci xëyum ndaw ñi nag moom président Macky Sall ci conseil des ministres nag yokku na ci ñetti at yu ñu ko fas yéenee doxal jamono joojee nag libération daal di xëy sëgg nag ci mbirum maître coranique bi nga xam ne nag dafa yoroon paak di xupp nag ki nga xam ne moo di ab élève am ginnaaw bi nga xam ne rek way juri ndongo yi génn nañ nag di ñaawlu li ñu mel moom mi jiite institut franco arabe jamono ji nag mi ngi ci loxo yoon su lay Souleymane Cham lay wuyoo moom nag ma nga bàyyeekoo ca réewum Gambie fukki at ak juróom-ñett moom la am bésu tey ji yemook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre nag yemook bés bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku jëmm ju tedd ja Serigne Saliou Mbacké di ki nga xam ne rek mooy borom jamono fukki at ak juróom benn ginnaaw bi mu dëddoog léegi nag yëglekaay yu bëree bëri xëy daal di sëngeem boole ci nag di ko ñaanal suñu borom yokku leeram te taas ñu